asalaamaaleykum wa rahmatullah allahuma salli ala seydil alamin muhammad miftaaxul lijaabati wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman maa ngi nuyu mbokki sénégalais yépp di gërëm sama sëriñ maolana baay muhammadul muxtaar ka nafanallaahi bi barakaatihi wa wilaayatihi di nuyu ànnandooram bu baax ma yaaycha umul arifina wal muminina di ñaan yàlla yàggal ya leen fii wéral te katanal ma ñëw fi en tant que président mouvement fonk sama jàmm comme niñ ko di defee di alerter di waxtaan di sensibiliser bi yon dama bëgg dama damay ñëw di wax ni nyun euh, ñun ñu ngi doog a campagne fi ñu gañee ni élection bi fii la ñuy doog a commencé campagne parce que foog ñu sensibiliser sénégalais yi ba kenn ku ci nekk xam nan la mën a imprégner woo dans le bon déroulement du projet parce que comme niñ koy faral di waxee euh, projet bi nga xamante ne moo tax gars yi ci lu ne ba àgg fii liggéey bi dafay doog a tàmbali foog ñu fexe réussir ko maanaam mi ngi man la yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon ay xare Uhud ak Badar ak yep mu ne romb nañ xare yu yomb ñu ngi xare bu mag bi moy jihadul nafsi fim tol toll nii liñ fi jot ay mars ak yoy yep mo gëna tuti tuuti par rapport ak li nga xamantena moy xaar sénégalais bu nekk ci euh, succès projet bi nga xamantene euh sénégalais jeunesse bi sumbu nañ ko tay kon kenn ko ci nekk ma ngi lay wax na nga suivre mouvement fonk sama jamm ci alerte yi nga xamne da koy def ak ci euh, leral yi nga xamantene mi ngi koy joxe euh, abonné wu ci page Basamba Bousso Ba l'officiel euh, abonné wu ci page TikTok Osra TV abonné wu ci page YouTube SENactu 7 ba nga xamantene lepp lu ci xew rek kenn kenn du ko raté inshallah rabbi donc euh, tey damay def benn waxtaan bu ndaw boo xam ne dama koy def en deux parties gàttal ko comme ni ma ko waxee dina am ci plateau yoo xamante ne incha allahu rabbi ñu ngi koy waajal toog fa gën a joxe ay leeral kon nii dinañ def euh, ay junj euh, wane ci ay quelques bunt incha allah dañuy def benn récap ci régime Macky Sall bi ana lan moo tax ñoom ñu échec. loo xamante ne bëggoon nañ ko def muy jëmale Sénégal kanam ba sénégalais bu nekk mën cee gis boppam parce que intention président bu nekk loolu la mais day dogal nga fekk nga xam fan nga war a jaar ba pare mën fay jaar am ñi dafa war a jaarale et parce que dañuy wax ne dem rek yomb na mais am koo demal am koo àndal moo jafe hmm? te euh, président ak jigéen juñ mayee bees muy sëy ñoo ñoo bokk yem. ndaw si dafa dikk sey si day sey si jëkkër ji ngir lan di sàkku barke njaboot gu gu barkeel kon président dafa sey si gouvernement bi day sey si biir xolu sénégalais bu nekk si biir soxla sénégalais bu nekk da ciy sey bu ko defee moom it lim siy sàkku mooy waa réewam gërëm ko ndax njit yombut te njit bu la sa waa réew gërëmee nga dem aljanna waaye sa waa réew buñ la gërëmut doo dugg aljanna de waaw kon Euh, Macky Sall bi mu fi toogee boo seetloo lim njëkk a def dafa wax ne dafay auditer ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon ci régime wadiste bi te moom ci la bokkoon ah mu toog audit commencé di topp ay Karim Wade ainsi de suite di joxoñ mais moom benn erreur la def boo xam ne moo ko coûté ba yóbbu ko muy doon dictateur mooy que ni que waxtu bi nga xamante ne mu ngi joxoñ sàcc yi ci ancien régime bi moom fàtte na ne waxtu bi muy joxoñ kenn ku nekk ci ñoom yeneen ñetti baaraam yi ñu ngi ko joxoñ moom fu mu joxoñee kenn yeneen ñetti baaraam yi ñu ngi ko joxoñ fu kee jëlee benn moom jël na ñett léegi bëgg na ñele delloo te moom bëggut delloo ci explication boo xamantene ne dafay gën a leer ñëpp ñëpp mën ko comprendre ñëpp mën ko dégg parce que am nañ ko fi parce que yàlla daf ñu yónnee ay yónnant pour ñu jàngal ñu teg ñu ci yoon bi nga xamantene ne mooy bi gën si société bi nu muy nekkee ci jàmm ak nit ñi àggee ci moom yàlla jamono yonent yàlla insa dafa am benn jigéen boo xam ne dañ ko tuumaal njaalo def na kam defut ko ñu indi ko ñu ne kii atte ko parce que dafa dafa njaalo yonent bi yàlla da koy may bashira da koy may kashfu da koy xam loolu ci biir xol yi mu tontu leen mu ne leen que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre wa waxlu boobu rek la wax mu toog noppi di déglu gaay yi mais tawhid la jàngale bu mag a mag la kenn ku ci nekk bi nga déggee wax ji da nga réfléchir ki kat bu fekke dañu wax ne dafa njaalo mo wara jël xeer bi mo war ko ko sanni te neena ki ko ko ki wara a sanni moy musta ki nga xamantene mom musta mësta tooñ musta moy mooy xeer bi mu teye ci loxo bi bi mu xalaatee ñaata yoon la moy yalla ñaata yoon la toñ yalla te xamal ko bopam mi ngi sutural bopam gennul weer bopam xamal ko bopam yalla xam ko gën ko ko xam ba pare yalla sutural ko ko moom xam na ne xeer boobu noonu ndekete moom mérité wul benn xeer bi mu war a jël sànni waaye ndekete moom ay bato xeer la mérité pour jël ko di ko dóor boppam kenn ku ci nekk waddal xeer bi nga yor te te te wane ginnaaw dem sa yoon yonent yàlla Iisaa jàngale na loolu si si si si jamonoom eh, nga ñëw ci diine lislaam dañuy wax ni que nit ki jullit bi bu faatoo ba dugg ci bàmmeelam lenn rek lañuy xool ci mom moy julli buñ vérifier ay jullem jullem bax koku dootuñ ko laajati lenen dootuñ vérifier til dara dañ nan lepp lu ci top rek yiw la comme ko baxal na li rek li ci top li yeb lim defati rek lu bax lay doon waye buñu xolé julli gis ne ko julli baaxut lepp lo defati rek dañ nan jarul contrôler ndax lenen lu mu ci tek rek du bax kon dafa am lolu dafa nek ci quotidien wu kenn ku nek ci nit ñi dafa am lo xamne ci début bi boko baxale rek sa da fay muju bax mais bu bonee sa ben gi rek lépp dafay daal di bon Macky Sall nak ci audit bobu la yaké lepp mom li mo waroon def moy dialogue bi nga xamantene da ko jël daf ko armam don ko utiliser dialogue bi moko ko mënoon sauver mais dafa xamul won nan la wara mëna mën dialogue bi parce que dialogue bi deug deug moy dafa waron rassembler

à la population ce qui est la à la population donc moom Macky Sall bi muy joxoñ gars yi gars yi leen delloo yeneen ñett yi ñu ngi ko naan sëriñ bi njëkkeel ci yow mosieur le président njëkkeel ci yow moom bu fekkee par exemple ma joxe un exemple bu fekkee ne kenn ku ci nekk jëloon nga un million un million Macky Sall day yëkkati trois tiers un million teg ci table. mu ne lii man président Sall maa ko teg ci taabal bi sàcc na am sàccut yow jëlal rek trois ceeru un million nga teg ci taabal bi ne man Macky Sall teg naa la ci taabal keneen ko jëloon indil nga teg ci taabal bi léegi à partir de loolu loolu buñ ko dajalee rek dañ ci mën a liggéey mais seetlul bi mu échecgee foofu julleem boobu bi mu ci échecgee rek leneen lu mu ci teg dara baaxu ci lépp luy projet Macky Sall bi mu fi teg c'est des projets morne fitna rek la jural sénégalais ba yóbbu ko moom ci boppam jural ko fitna mu topp ko dictature ba nga xam ne benn sénégalais gërëmut ko kon Macky Sall bu espéré dugg aljanna wala sëriñ boo munti yaakaar wax la lu la neex ne la di nga dugg aljanna sa population gërëm na la waxut dëgg kon Macky Sall yow amel nga njukkal Sénégal yow sa aljanna boo ko bëggee amaat fi mu toll nii foog nga dellu si tarbiyawaat population sénégalaise bon loolu mooy échec bi nga xamante ne Macky Sall def na jarul ñuy continuer di relayer yeneen yi comme que échec na sa julli ga rek la si des li leneen lu mu defati dara dara dootul baax waaye dama bëgg a wax ni que li ci njëlbeenu régime Macky Sall nekkul njëlbeenu régime président Diomaye c'est diamétralement opposé diamétralement opposé bokkul. fii il n'est pas question ñu wax ne que jarul ñuy auditer il n'est pas question ñu wax ne nañ baale li fi il n'est pas question ñuy ne jarul ñuy topp kenn justice non non non non non liggéey bi fi nekk dafa bëri te li ñu war def dafa bëri avant de faire développer un pays il faut développer l'esprit de la population de ses citoyens avant ngay développer benn pays kenn ku ci nekk nit ku nekk foog nga fexe développer ko moralement psychologiquement ndax moom mi nga xamante ne sénégalais bi fi mu nekk ci këram nekk ci néegam mu mën a véhiculer li nga xamante ne moom mi ngi koy dund parce que alxuraan jàngal nañu yoon bi moo tax buñ tënkoo ci alxuraan kenn du juum. yonent allah muhammad mujj dundam jangale na ni ke morso yap mi ngi ci doomi adama bu baxé leppam bax waye bu boné leppam bon buñ ko laajee bon morso la mu moy xol légui da ngay seetlu xol moy teub moy alimenté mboolem cër ci dérèt kon moy nday ji len di nampal nday ja bu boné rek dom ja bon xol ba bu boné bu né loxo saccal rek loxo sacc waye xol bi bu baxé lap loxo bu bëggé sacc sax xol bi nan ko man sa nday xawma li té te nàmpalu kon xol boobu noonu dafa am ci lu nekk ci quotidien wu nit ku nekk rek xol boobu da cee nekk kon xol boobu la ci mooy noyau bi nga xamante ne foofu la ñu war a dem ba ci sookal bi defar ko donc fii il s'agit que ñu créer une population juste maanaam nit ku nekk nañ fexe ba mu juste parce que pour ñu mën a am une bonne justice fokk ñi ko jiite nekk des gens justes te loolu dafa tomaranke Sénégal dans tous les milieux nag dans tous les domaines moo xam ci médecine bi moo xam ci gendarmerie police foo dem corruption ma nga fa te la jur corruption ba boo demee ba ca xol ba da ngay xam ni que nit ki ñàkkaa defaru moo ko waral kon li ñuy xaar lu rëy la te kenn ku ci nekk foog ñu àtte la li nga xamante ne moom lañu la mën a redresser ñu redresser la ko pour un Sénégal prospère yàlla ci boppam lim defut lu ñun ñoo koy def diggante nit ku nekk ak yàlla li nga def yàlla bu ko neexee mu baax la ko mais diggante nit ak nit yàlla da cee ne sama yoon nekku ci kon li nga xam ne nit ak diggante nit ak nit la kenn nit mënta toog fële ne baale naa ko c'est impossible donc tey muy président Diomaye bu fi toogoon sax ne day baal gaay yi fi jaaroon dañ ko naan du yow lañ def wala yow liñ la def mën nga koo baale mais ñun sénégalais kenn ku ci nekk li nga dund dinañ ko yëkkati teg ko ci taabal bi réseaux sociaux yaa ngi fi buñ mënta bind def ay documents yóbbu ko ba si sa taabal bi teg ko fa dinañ def ay vidéo wax ko nga dégg ko boo ñuy siy taxawu nga taxawuñu ñu mais li fi nekk si injustice ak li fi nit ñi dund. yëpp dinañ ko réyeele détail part détail teg ko ci taabal bi yow nag yow yow la ñuy xaar nga gérer loolu lépp ëmb ko ba ñu mën a am une justice waaw kon euh, vidéo bi duma ko duma ma ko guddal torop euh, dama koy yemale fii mooy une première partie maa ngi def deuxième partie bi ci euh, beneen vidéo incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah